ko visa ak passeport mu ngi war a voyage pour xamal leen ne rek nekkuma woon fenn fu dul fii nii si dakaar man mii ma parewul woon pour recevoir kenn ci ñi nga xamante ni ñu ngi ma doon bëgg ñu ngi ma bëggoon gis wala ñu ngi bëggoon wax ak man maa ngi doon gis tamit ñi nga xamante ni ñu ngi doon def tout pour gis ma te leen xamal ne tamit nekkul woon lenn. moo taxoon ma tey sama bopp mais dama foogoon ne c'était pas le pour ma wax ma gis kenn wala c'était pas le moment pour ma wax ak kenn te parewul moo woon tamit pour wax ak kenn. maa ngi remercier suñu kilifa diine yi maa ngi gis wax ji maa ngi gis tu maa ngi gis lépp li nga xamante ni ñu ngi koy def mais pour man dafa nekk loo xamante ne. mënuma ko woon continuer du muñ wala mënuma ko woon bàyyi mu sedd comme ni ko ñëpp bëggee woon te di leen wax ne tamit ba may defi lii aw ma ci woon benn intention ko Sénégal traversé moment yi nga xamante ne traversé na ko te loo xamante ne jaru ko sax woon ci loo xamante ne affaire de mœurs la woon benn sénégalaise lañ toog mu dem porte plainte am na loo xamante ne waru ci fa woon sax egg si may baaluwaat bu baax di leen jaalewaat di baalu àq bu baax a baax a baax a baax te xam leen ni tamit bu doon sama sogo du ñu am sax blessé bay am ay mort maa ngi jaale famille yépp képp koo xamante ne ñàkk nga sa doom wala sa rak wala sa baay wala quelque chose comme maa ngi lay baalu ak di la ñaanal fa nga jëm yal na fa yal na la yàlla xale arjana wax bi nag du gudd du gàtt ndax euh, lu nekk dégg naa ko tamit mu nekk loo xamante ni metti na lool nga nekk xale bu jigéen ñu lay waxal li nga xamante ne waxal la ba waxal la loo xamante ne sax amaana mosoo koo def xamoo ko mosoo koo dund maa ngi doon dégg ne aji dafa dof maa ngi doon dégg ni aji aji saar cagala maa ngi doon dégg ne taxawaalukat la maa ngi doon dégg lépp mais lépp ma toog di ko muñ pour ñëw rek pour euh, leeral ñeeg Sénégal léegi ci benn mbir sama liggéey ci Sweet Beauty ak ni ma xamante kii nga xamante ne mooy ni ngeen ko xamee muy Ndeye Khady muy Ndeye Khady Ndiaye gën koo xam ci finaa wala Estella Ndeye Khady dafa nekkoon nit koo xamante ne mun naa wax sax dafa sori si man ba lu muy wax si man sax instant bii nii mënuma gëm ne moo nekk di wax parce que lu nekk dund nañ ko maak moom lu nekk defal naa ko ko lu nekk defal na ma ko parce que nee na nit ki tamit loo ko bañ-bañ nga waxal ko li nga xamante ne moom moom la moom day xadi sama benn xarit moo taxoon ñu xamante sama benn xarit mënoon naa wax ni sax kooku sama mag la moo boole woon ak moom kooku moo ko doon liggéeyal boole maak moom ñuy liggéey di liggéey ba kooku arrêté bàyyi ne ma yaa ngi continuer de waaye léeg nga arrêté ñu nekk di nekk di nekk ba mu benn jour mu ne ma sama cabine wolootuma ci kenn ku dul yow dama bëgg rek nga liggéeyal ma te yàlla tax te nga xam ne fii dañoo jubut te instant bi li ma jot a gis ci yow doy na ma ne ma léegi de partir d'aujourd'hui client bu ñëwati yow yaa koy teeru client bu ñëwati yow yaay waxaale ak moom yow yaa koy dugal après mun nga wax beneen fii mu dem marché ko ma na ko ah fii de bëri nañ mais comme da nga gis ci man confiance ba dénk ma sa li li nga xamante ne mooy sa liggéey yàlla bul mës a am mbégteel ci man wala yàlla bul mës a am lu naqari ci man mu nekkoon nit koo xamante ne tamit ku naa woon laa koo xamante ne ay qualité qualité yu ma gisoon ci moom gisoon naa ci moom ay qualité yu baax a baax yoo xamante ne bëgguma woon lu dul dëkk ak moom à vie parce que dafa doon dëkkal ci samay nopp ne nit ki loo am rek ak nit ki loo munti am ci àdduna te àndoo ci ak sa ngor wala nit ki loo munti am ci àdduna te du sa ñaq bu yeboo nga dem xoolaat sa bopp te liggéey bii ñuy liggéey du ma ne baax na de mais maa ngi ciy suturloo di ci dimbale ñi ma war a dimbale te man gis naa ne ku sérieux nga. moo tax ma mun laa dugal sama nekk di waxtaan ak yow maa ngi dégg na ci benn côté muy naan moo ma booleeg Sonko Ousmane Sonko ci beneen côté ba mu ne boolewuma ak Ousmane Sonko ma koy naan tey de mun naa wax ne tey won nga ma loo xamante ne amaana dama ko doon ignorer si yow amaana bugguma ko woon gis amaana ñëpp waxoon nañ ma ko sax ma ne noonu loolu dëgg mun naa wax ne tey tamit bëgguma sax gëm ne ki xale bu jigéen bi may dégg muy wax ci télé yi muy wax ci internet bi bëgguma sax gëm ne yow la parce que mun naa wax ne lu bari lu nekk ci man yaa ko ci def ci man tey su ma baaxee yow la tey su ma bonnee yow la parce que lu bari mën naa ko ci milieu massage wala mën naa ko ci milieu bi yow yaa ma ko def loo lu bari xam naa ko yaa ma ko def loo yaa ma ko jàngal kon buñ toogee tey ba nga olbatikuwaat di yàq sama der kon day nekk loo xamante ne mbégteel lay doon si man Ndey Xadi nee na man dama mën duul day xadi nee na jubuma que daf ma dàqoon ndax dafa amoon rumu remarqué ci li euh, ci man loo xamante ne clients yi dañ ma doon dañ ma doon lii nii may wax ne boo nekkee sa fii sa élément muy liggéey nga présenté ko say clients clients yi bëgg ko mu nekk fierté ci yow ba client bu bu client bu dul client Guinée bu ñëw da nga koy woo même bu duggee sax si si di liggéey koy woo téléphone na ko génn kee ñëw na dafa am xaalis demal nga def lu tout pour mu fay xaalis bu bëri. ba maa ngi dégg sax muy naan dàq na ma benn yoon mais mosuma dàq day xaddi mosuma dàq bu ñu ko xamul xam naa ay cli ay clients yu bari ñu ngi taxaw di ma dégg final lañ xam wala Estella final mosuma dàq suma premier problème ak moom fenn la woon. mooy dama duggoon jacuzzi jacuzzi pour ñu ko xamul genre baignoire la boo xam ne da nga ciy def ay pro ay produits mu xëpp dama duggoon jacuzzi jour boobu client boo xamante ne 40 000 la fayoon parce que jacuzzi 40 000 la te jacuzzi booy dugg ku góor ki day def nu yow ku jigéen ki nga def deux ma duggu ba mu parce que jacuzzi une heure de une de temps la léegi 45 minutes yi nga xamante ne moom laa waroon seq ak euh, client bi. pour ci accompagner ko si lii bi si jacuzzi bi kuule na mu des 15 minutes yi nga xam ne ci la war a préparer dem sangu ji pour ma vider jacuzzi bi mu sol yére ci 15 minutes yooyu la ma woo téléphone ne ma kili am na client bu ñëw mu ngi si porte bi te nee na bëggul keneen ku tijji ko ku dul yow ma ne ko waa d'accord ma ne client bi maa ngi ñëw daa am lu may def après ci la ko client bi woo ma dem tijji ki beneen client bi dugal ko client boobu jour boobu mu ngi fay 50 000. moo ko ne ko client bi de cinquante 000 la fay te mu ne ma ah waaye garaawul au moins sax yokku na beneen client bi ba woo ko téléphone na ko ki ki ma lii de nag ma def ma fee bàyyi dem yoonam léegi mu bëgg bëggul ñàkk client bi nga xamante ne fay na 40 000 te maa ngi dugg ak client bi nga xamante ne moo yoroon moo fayoon 50 000 léegi ba ma génnee mu ne ma pour client bi pour ma bañ a perdre client bi damay obligé licencier la si sa kanamam ma daal di ñibbi mu ne ma waa kon d'accord ma mu licencier si kat ci guddi gi. ma ñibbi woo ko téléphone ne ko fina li nga def noo ko mu ne ak client bi lu mu la mënti wax yow ma nekk ak yow di liggéey xanaa sax yow nga may ma au moins ma expliqué wala quelque chose comme te yow lii man client bu fekkoon ne sama coobere moo tax ma génn mais yow yaa ma woo téléphone ne ma génnal nga dem nga dem euh, marché ji kii beneen client bi yow la soxla ma génn mu ne ma noonu du loolu ah d'ailleurs sax suba boo xëyee rek ñëwal bul fay sax taxi bi maa lay fayal taxi dama bëggoon kese client bi foog ne comme. dañu dañu dañu li dal dañu professionnel sur suñu liguey té ñun duñu fowé nit parce que client yi tam nañ ben affaire client bu ñew tud bu mënti dugg ñi maase wax xam nañ li wax bo len euh, défaru sa massa ñu wari aatal nañ dugg sa douche wala li ni caméra ko duggal ko sa page pour yaq mu ne ma té man aji man duma ma nangu kenn kuma yaq sama liguey man ko kon baxna waxul war sax man aji dafa wax ne Aïcha parce que man Aïcha lañ ma doon wowe fofu mu ne ma Aïcha du ma nangu kenn ku ma yàqal sama liggéey ma ne ko ah kon comprendre naa la waaye suba boo xëyee da nga ñëw liggéey si ma ne ko waa ma ñëw liggéey si mu nekk mu yóbbu ma si beneen cabinet bu bees ne ma yow sax fa laa lay gis naa ne mën nga apporter nit xaalis te gis naa ne mën nga sa liggéey te boo fa demee comme que cabine boobu cabine bu bees la dina perle nga nga yëkkati ko mu génnee xaalis ma ne ko waa d'accord ma continuer directement si beneen kabine bu bees ba ba ma demee foofu toog foofu ba mu yàgg après ma ñëwaat si biir kër gi ba mu ñëwaatee si biir kër gi ci laa xamante ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ñu dem di liggéey di dem di liggéey ba benn jour premier jour bu Ousmane Sonko di ñëw ci kër gi fekk fa woon ki nga xamante ne mooy final te moom nee na saa yu Ousmane Sonko ñëwee moom mooy boole moom waaye saa yu Ousmane Sonko ñëwee ci ay waxam du ko yëg. moom nee na Ousmane Sonko tabaski 2019 la fa njëkk a ñëw te lii la fa indi woon nuñ koy waxee manti laa tam bu baax la indi woon waxaat ne Ousmane Sonko bu ñëwee foofu noonu day muuru day toog muuru ne Ousmane Sonko tamit bu ñëwaatee foofu bu ñëwee foofu noonu du bëgg sax kenn gis ko wala du bëgg sax kenn koo xamante ne kenn du ko xàmmee ma leen di leeral kàddu yoo nga xamante ni gis na ma trop ma la koy wax mais loolu yëpp du dëkk Ousmane sonk mun na faa ñëw ba des te moom sax du ko teg bët mais ñoom ñaar dañuy déggante. may wax ne nee na 31 decembre Ousmane Sonko ñëwu fa 31 décembre moom 31 du jour 31 décembre la am doom beneen fii bi ñibbi ma beneen fii bi ñu toog foofu noonu moom mu ngi woon hôpital parce que jour boobu la am doom. te moom nee na mu ngi woon suñu kër 31 décembre te moom jour 31 décembre la am doom ndax maa desoon si kër ga même sax beneen fii bi doon ñibbi mu ngi naan yéen des leen fii rek ñu mel ñu ngeen u ni feet ngeen war a dem seen kër yi feetu ji mënoo leen sax génn kër gi pour naan da ngeen di fen nekk fi di liggéey te ngeen xam ne tey gis kenn du ngeen yëg benn client parce que ku nekk ànd nga ak sa jël wala ku nekk yaa ngi feetu ak say famille ñu ne ko noo garaawul ci guddi googu noonu la Ousmane Sonko ñëwaat na foofu noonu 31 décembre boobu ñëw na foofu noonu ba jour boobu sax moo may moo ma moo may beneen fii bi nga xamante ne bokkoon na ak moom xas pour mu jënd ji ay pétard taal ko ci biir kër gi moom nee na après laa ko woo téléphone pour ne ko damay dem sama kër juste pour xamal ko ne mënoon naa laaj ndax jour 31 décembre samay waa kër nekkuñu woon Grand Yoff dañu demoon seen dëkk pour feetewu ji ak seen yaay ba jour boobu sax maa ngi leen di woo ci guddi gi ñu may xas ne ma yow daal ne nga yow liggéey liggéey liggéey ba ba sa jour fête sax mënoo ànd ak say say njaboot dem feetu ji ba may naan yaay comprendre leen ma rek jour boobu noonu mën nañ dem Grand Yoff laajte ku mu neex ndax jour 31 décembre samay waa kër ñu ngi fa woon te nee nañ deux à part dem naa su ma demee fan laa jëm sama suñu waa kër jour dañoo 31 ba doog a lii nii dem leen Grand Yoff ko ñu xaar yàlla yaay fa mu dëkk bu fekkee ne jour 31 décembre suñu waa kër ñu ngi fa woon kenn moo fa desoon muy sama mag lenn moom kese moo fa desoon ñu waxaat ñu demaat ba mu yàgg mu ne le 11 le 11 décembre tamit ba fa Ousmane Sonko ñëwee moom moo génn Ousmane Sonko dafa sonni dem dem yoonam moom mu profitoo fekk beneen fii bi mooy dem tijji mu profitoo kooku da koo tijji gis mu avancé mu ñëw ne ma jarul sax may sonn parce que bu duggee bu duggee. bu su ma ko dugalee rek te mu waxaat foofu ne yoroo xaalis day ñibbi parce que boo xamee ne du yow day ñibbi demal rek comme gisuma demal rek nga ti jël ko après moom ci la dégg loolu génn ne Sonko la yow lay laaj bu nekkul li ngay xam ne damay bañ noonu tey am problème wala damay bañ ñooñu seen famille xam ne dañuy liggéey massage kon tey mun naa tudd seen tur mais duma ko def parce que amaana sax ñooñu bëgguñu benn fii bëggul di liggéey massage seen waa ko xam ma ne ko encore ah baax na après ba mu ba ma ko tijjilee taal ak samay bougie ñoom moom fi mu ngi tëju si néegam ne ma jour boobu nu bul bul fexe ba mu xam ne maa ngi ci kër gi wala bu xamee maa ngi ci kër gi attan na dem yoonam mën na ko noo tànket moom pour man instant bi man kese maa nekk si kër gi mu nu waa d'accord ma dugal ko jour boobu ne Ousmane sonk 50 000 la fay te 4 mai 40 mille cinquante 50 000 la fay 50 000 yëpp laa jël dox ko Fina. fi ma waa lu tax mu joxe cinquante mille ma ne ko ah laaj naa la ko cinquante mille la mu joxe mu ne ma comme 4 mai yi quarante mille la bàyyil ma jox la li nga xamante ne mooy dix mu jox ma dix mille ma jël xaalis bi joxaat ko beneen fii bi parce que mosuma bëgg san mu moom xaalis boo xamante ne saa yu ñëwee foofu jox ma ko mosuma bëgg laal ci benn dërëm balaa muy mel ni que lu muy def seq ak man def def nekk loo xamante ne daf ma ciy jaay wala dama ciy jaay sama bopp jour boobu bañ ko bañu maasee ba pare fii bi génn bàyyi waaj mi foofu noonu ba mu paree daa dem fii bi génn ne ma noonu mënuma gëm ne Ousmane Sonko ñëw na fi ba dem te may may ñu benn 10 000 francs maa ngi ma ne ko ah léegi bu fekkee ne poosam foofu la toll nag mënuma noonu gëwuma loolu yaagul dara fii bi dem yoonam après ma ko téléphone ne ko yow Ousmane Sonko ñëw na fi de may na la 20 000 francs muy naan wuy sama ndey waatal man kay xamoon naa ne sonk moom moo ngi doon tagg Sonko sama téléphone laa ko doon te sama téléphone lay enregistré xamoon naa ne sonk bu fa ñëwaatee def may may man leer na ma ne may na la parce que mënu seex ak yow ba pare may mayu ma xam naa la takkatu diir nga takk xel nga moom mooy wax loolu xam naa la ma ne ko billaahi wallaahi tàllaahi Ousmane Sonko de mayu moo jour boobu noonu dara bu dul à part bi nga xamante moom la yëkkati jox na ko te 10 000 boobu noonu final laa ko joxoon final moo ñu ko joxaat maa yow mu ne ma ah kon baax na boo ko waxee de gëm naa la mu ne ma kon baax na léegi envoyé mu xëyaat ci suba si woo ma téléphone ne ma ana xaas bu ma envoyé mën na ko yow demal nga toog yow xam ne Ousmane Sonko yorul sax dërëm bu lu suukar baraat bay maye ay ay ay lii koo xamante ne du maye du saraxe ci kii rek laa ko gis mu ne ma ah kon baax na après moom mu ne ma kii de man bàyyi naa ko ay su ma demoon wax sama papa ne sama papa nga xam ne dafa bëgg Ousmane Sonko. su ma demoon wax sama ne tëral naa Ousmane Sonko gis ko mu def yaramu ne sama papa amaana sax def may xaañ si ma dee benn yoon parce que du ma gëm ma ne comme xam nga ko rek baax na lii ko foo ko yëkkati kenn du la gëm. mu ñëwaat li nga xamante ne mooy le 2 février le 2 février sama patron nee na dama doon wax téléphone dama doon wax téléphone mu dégg ku may waxal ne kooku di naan ba Ousmane Sonko ñëwee. avant le 2 le le le premier ma la ma kii nii sans patron au téléphone nema ma ay 17h mu ne ma fekk sax daa amoon ku c'est si porte bi sonné ma tijjel kooku ba duggal ko mu woo ma téléphone ma daw jël parce que ma yoroon annoncé je vous téléphone yi ma ko yoroon ma woyou ne ko taafinaa loo wax mu ne ma lépp loo japon bàyyi quoi ku n'est ki ne ko mu maase kooku nga tijjel tonton Ousmane Sonko mu ngi ñëw ma ne ko bàyyil mu ma jox ko ku parce que estant bii nii am na ku ma waxtaanal ba pare te moom laa war a maase bàyyi mu jox ko ku bees mu ne ma noonu estant bii nii nii liggéey bi dafa tar te fi ma nekk nii dama koy fay maa ngi nii CRES te damay fay CRES journée cinquante mille la ma wax laay fay CRES ma ne ko kon baax na ma dem tijjil ko mu ne ma cuuraayal nga bàyyi porte bi noonu mu nee na mu ngi si porte bi tey gaare cuuraay nga bàyyi ko après ma dem def cuuraay pompe kër gi tijji porte bi bàyyi ko noonu mu amaat keneen ma tijju mu nekk naat bi ma envoyé waat ko message ne ko du moom de naat bi moo ñëw mu ne ma noonu mu capturé message bi nga xamante ne moom la Ousmane Sonko ndax doon wax ne daf may défier envoyé ma ko message mosuma toog fenn ne Ousmane Sonko daf ma envoyé message mosuma toog fenn ne Ousmane sonk yor naa numéro ko dañuy jokkoo pour mu leer capitaine ba ma demee tamit ci euh, gendarmerie ba ñu ma laajee dama leen wax ne mosuma envoyé message mosuma woo téléphone mosuma dégganteeg moo mosuma dégg fu muy waxee téléphone tamit loolu laa fa wax après message bi nga xamante ne moom la ma Fina kii nga xamante ne mooy finaa di Estella envoyé message capturé ko envoyé ma ko ne ma non non loolu mënul nekk ndax ndax Sonko léegi moom sa waa Sonko léegi sama lépp a ngi sama téléphone ne ma Sonko léegi moom bu la waxee lii rek xamal ne que léegi dafa commencé di wax loo xamante du am pour bañ a jaar ci moo bi nga xamante ne jubul ma ne ko ah boo xa boo ci xamee dara de nga wax ma mu ne ma kon baax na man de def ma envoyé message ne ma mu ni ñëw message boobu laa jël envoyé ko envoyé ko ki nga xamante ni mooy sama xarit bi comme ni mu ko waxee nekk sama xarit nekk sama frère mu envoyé ko ko ne ko garden ma lii parce que sama téléphone dafay fees mu ne ma d'accord muy message boo xam pour ma ma bamtuwaat message bi Ousmane Sonko mosuma envoyé message Ousmane Sonko mosuma woo téléphone. Ousmane Sonko mosuma ko gis fu muy waxee téléphone aussi te mosuma toog fenn wax ne Ousmane ko def ma envoyé message wala day dégganteeg man wala day waxtaan ak man loolu moom man maa koy dëggal su ko neexee ci kaw. ci mardi bi lundi bi lañ ma waxoon day ñëw ñëwul ci mardi bi ci ay ay vingt une ñu toog ba ay vingt jour boobu sax ñaari client kese lañ amoon ñu toog ba ay vingt heures diggante dix neuf heures vingt heures ma ne. Euh, kii ñu suñu jànq bi ñëw leen ñu jënd ak beneen fii bi ñëw leen ñu jënd reer parce que instant bi couvre-feu bi léegi mu commencé te damay bañ tëj ñuy génnaat dinaan lii ak lii ak lii te kenn nekku si kër gi tonton Ibrahima ñëwagul kenn nekku si kër gi te bugguma ay génn tëj tëj yooyu mu ne ma ah kon d'accord ñëw leen ñu dem ñu dem ci biir doore bi nekk Liberté 6 jënd foofu reer ñëw toog dañoo nekk di reer nekk di waxtaan toog di reer affaire yooyu ba benn instant à vingt à vingt une heures ma wax euh, fii bi ma nekkaloon ma ne ko yii demal tijji mun na ma mukk duma dem tijji ndax damay doog a ñëw yaa ma fi indi ku bees laa yaa ma fi indi demal rek tijji bu fekkee dee nga dee bu fekkee dee la nga dee boo deewee naa la ñaanal dégg nga ñuy ñuy waxtaan di reetaan noonu mu ne ko yow baax na loolu nga may ñaanal ma dem ba si porte bi ma taxaw ba mu yàgg ma ne ko waa après nga ñaanal maa ngi ko koy yuuxu noonu ma tijji parce que man xamoon naa ne heure boobu noonu. moom kese moo fa mënoon ñëw parce que d'habitude moom kese mooy def yooyu noonu bàyyi ba ay xaaju guddi wala bàyyi ba ay guddi wala bàyyi ba ay njëlloo mu ñëw moom kese moo fay def ma dem tijji mu ne ma yow léegi yow booy tijji doo wax sax yow la kan ne ko man xam naa ne yow la di moo tax du ma ne yow la mu ne buñ la fi rayoon nag nooy def ma ne ko ma dee rek est-ce que du boobu moo may gënal sax dee moo may gënal mu ne kon baax ne buñ la di buñ ma fi reyoon man de amaana ko damay xaruwaale ànd ak yow lu ma wax ma ne ko

duma fi sax passé maase leen ma lu gaaw 10 minutes rek ma dem sama yoon ma ne ko kon loolu nga wax bàyyi ma walla beneen fii bi ñu defal la 4 mais bu gaaw nga xam ne da ngay teel a dem mu ne ma waaw après mu ñëw ma woo beneen fii bi ne ko dugal nga maase ko mu ne ma yii yow kii ñemewu ma de mën ne ko lan ngay ragal xanaa du nit comme yow mu ne ma yow gisoo sa kanam bi nu mu ko changé ça veut dire kii nii jubul walla kii soo mu ne ko yow dugal rek du maa la fi indi man maa la indi fii pour ngay liggéey man du ma la duggal si lenn loo xamante ne da lay gaañ mu ne ma baax na mu ne man di ko moom sax wax na ko ci interview bu nga xamante ne face to bi ñu amoon ak kii nii kii nga xamante ne mooy capitaine Touré mu ne ko aji def maa wax ne melal ni comme si xamoo ne Ousmane la noonu laa ko wax melal ni comme si client rek bu dugg comme si du moom comme si du dara melal ni comme si client la boo xamante ne daa ñëw pour maasa mu ne ma kon ba baax na après si la dugg nuyanteeg moom génnaat jox ko serviette man ma dem di di sotti huile yi pour indi ko ak li nga xamante ne ndey kii kii wax na ko kii indi ndey Xadi Njaay ne bàyyi saa fa ñëwee frotté lay indi moom lañ koy maase pour wax ne man sax loolu noonu xalaatuma woon sax défier li nga xamante ne moom la Fina kii nga xam ne mooy Tafina wax parce que respect bi ma amoon ci moom xalaatuma woon sax dem gendarmerie di fa wax ne Ousmane Sonko mosu faa ñëwee ak li nga xamante ne mooy lii nii

bugguma woon indi ay problème bugguma ko woon sax créer ay problème moom mi nga xamante ne mooy taafina parce que jigéen la boo xamante ne day daan doole bi te doomam mu ngi fee ci crèche te instant bi dafa war ni man su ma sañoo sax du ko woo mu ne ma baax na ci la absa kii absata absata ba wax ne carrément que moom moo indi serviette man mi maa indi huile bi après ci lañ koy maase ba mu yàgg mu génn ci lañ fa des li nga xamante ne des nañ fa maa kii nii nag maa Ousmane Sonko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 ak Ousmane Sonko dañuy déggante daawoon na ci dute parce que ci si ay biiru wax Ousmane Sonko daf ma doon wax yo xamanteni daf may doon ay doute pour ma gëm né mom ak ki nga xamanteni moy final di Estella dañuy déggante. après si la ma si la ma ne man xamna né ne doon nit ku bon sama téléphone bi jour bobu noonu sax pour bañ ko pour am ay soupçon wala quelque chose mu bañ am ay soupçon que amana mang koy enregistré appel WhatsApp la ko jour bobu non mu ne ma aji ma ah mu ne ma. xam naa ne doo nit ku bon li tax ma wóolu la bàyyi la sama kër di fanaan hôpital bàyyi la ak sama jëkkër xam naa ni doo nit koo xamante ne dangay caaxaan wala nit koo xamante yow nga xamante ne chaque jour ma ma la wax la ci fii nii fii nii ñëpp di dégg chaque jour ma ne la yow lesbienne nga chaque jour ma wax la ko dem na sax ba ci capitaine toure ne ko kii de lesbienne la moo tax bu ma déggee ëmbam walla bu ma déggee leen nii daf may jaaxal parce que aji mii damay dégg sax muy wax téléphone di wax ay wax yu garaaw ci ay jigéen wala affaire yi ay jigéen rek laay gis mooy waxtaan te testé naa ko ku ne ndax final noonu lay def bu amee fii dalay lay testé ak ay clients yam yoo xamante ne dañoo am xaalis ko ñooñu pour tëddee la xool ndax taxawaalukat nga wala liggéey moo la fa indi ñooñu mu ne la ñaa lii ni proposé ba proposé la ay 200000 ne ma aji proposé naa la ku nekk waaye mosuma mosu mosuma gis li nga gis ci yow mosuma koo gis moom moo ko wax ne ma mosuma xam mosuma am fii bu jubee ni yow moo tax ma am sañ-sañ bàyyi la sama kër nga may liggéey te li may liggéey yow yëpp ma wax leen client bu fa mu mënti ñëw bu demee mun naa mën naa laa wax client yi fay ñëw yëpp te bu ñëwee noo mbir bi nga xamante moom la ñuy fay noomu boobu ngay verser sama jëkkër ci guddi gi mën na ko fina mënuñu mënuñu dëkk di tooñ yàlla ba pare teg si di def loo xamante ne mën na ko gis nga massage bi ñuy def moom ah mu nekk tooñ yàlla la parce que lii nii lii nii binduñu ko ci fenn ne dafa légal wala binduñu ko ci fenn mu ne xam naa loolu ku wax ne massage baax na dangay wax lu la neex mu ne ko mu ne waaye xam naa ne doo nit ku bon xëy na lii ndogal la rek boo xamante ne daf laa waroon dal la ma ne ko man kat instant bii sax dama bëgg a dem pour débrager wu une bonne fois pour tout parce que lii nii bëgguma sax mu jëm kaw ñëpp kenn di xam ne dama ëmb wala lii nii mu ne ma pour ngay dem jarul ngay dem jour boobu moo ko yëkkati ci kawam waxaat na ko ne ma jour boobu noonu jarul ngay dem ne ma mun nga jël koka nga def si trois cuillères de kafe nga naan ko nga tëdd muñ nga tëdd après tonton Ibrahima dina àll yi nii tonton Ibrahima sax bu mu bu mu xam ne sax yow instant bi loolu ngay def wala bu mu xam ne sax dangaa ëmb mën na ko waa baax na amul problème jëlal mu ne ma dindal instant bii nag couvre-feu jot na munoo koo def mais mën nga xaar ba suba nga bañ a dem seen kër di ànd ak sa yaay wala sa yaay di la xamal wala affaire bi mën nga xaar nga jël coca ak ñetti cuillère kafe nga dindi ëmb bi su ko defee problème du am kenn du la xamal mën na ko waa kon baax na ba léegi waxaguma ko ki nga xamante ne moo ëmbal ñu xaar ba ci suba si non su même jour bi su même jour euh, ki nga xamante ne mooy jëkkëram fekk ma ci kaw ma toog parce que tellement dama angoissé woon mu fekk ma ci kaw ma toog mu ne ma carrément aji man xam naa nit ku baax la te li tax sax man ma am confiance ne yow nit ku bu baax nga yow danga ñu ko woon fi naa gaawuta am kenn confiance ci moom te yow kese c'est la première fois ak kifi ki fi teyee tëyee bañ tëjee suñu cabine bi ba léegi ça fait trois ans la ma xaw ma quatre ans fi naa mosul am confiance comme ni mu envie bàyyi këram nii dem jox ko benn xale boo xamante ne bokkuñu dara mu koy liggéeyee di ko sa xaalis ma ne ko te ma waxaat ma ne ko li ma wax tata Fina rek laa lay waxaat soxlawu ma dërëmu nit. mu ne waaye kër gi de mun nga fee toog ba am doom moom tonton Ibrahima moo wax loolu mun nga fee toog ba am doom jarul ngay dem seen kër wala yow sax yow nga ne da ngay dem sa kër sa kër ñoom yaay kan moo lay yóbbu man ne ko ah man de xamaguma kan moom may yóbbu mais maa ngi woo sama frère bi ba xool parce que jotaguma boobu ba léegi maa ngi koy woo jotuma ko.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 Tek kamen jap bes bu ko defé man dina retirer sama plainte lu ma ci góobee ma gar ko mais ta foog naa instant bi ñu toll Sénégal toll na ci moment bo ay mo xas na ba am. wa aduna ma ngi leen di balu ak, bu baax a baax baax di leen jaale di leen mastaw bu baax baax man la di ñaanal yi nga xamante ne am nañ ay gaañu gaañu ci événement bi nga xamante ne moo passé ma leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla yëkkati delloo lañ ci seen activité di wax ne de su ma xamoon ne lii de fii lay mujjee wala lii yépp am dina ci am dina kon dinaa boole lu ma neex ak lu ma naqar yépp toog toog ci may wax ne amna mbekté trop trop trop si li nga xamantene mo moo xew ci nga xamné kenn waral dul man man ak Ousmane Sonko may delu di wat ak di wat ñi nga xamantene ñak nañ ci seeni frère seeni dom seeni jaay wala seeni pap ma leen di jale bu ba di leen mastaw tamit di leen wax ne comme nima ko sank rek moy suma xamone li fi lay mujjé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

fi nga xamante moy cabine de massage bi mané waw ki mom lu muy def ni xeyna sax dafa yakamti ma dem bama démé ba dugg ay doga xamné ki Ousmane Sonko la mais waxuma dara ma tonton lan nga bëggoon mu ma massage la bëggoon mu waxat ko massage ban massage parce que fii nii lii lañ li lañ fi am tonifiant lañ fi am savonnage 4 mai neuro massage body body ak jacuzzi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 perdre client boo xamante ni dafa mel ni man mën na ko ton léegi ngir yàlla rek bàyyi ma parce que maa ngi bëggoon def la tout pour échapper mën na ko ngir yàlla rek baal ma ci pour beneen yoon sax boo ñëwee au moins ñu pro parce que man man xaw ma góor xaw ma lii yëpp ngay def mu ne ma dangay fen après si ma xëj xoj ma lii ma ci ginnaaw jël loxoom dugal ko sama biir awra awra gis ne li ma ko wax dëgg la mu ne ma laa ci ma doon envie de plus mosuma ko woon xalaatee si jigéen yoo xamante ne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 loolu mu ngi nekkoon 2020. est ba mu defee lu ma def ba pare dem yoonam ne ma carrément li ma fi def foo ko mënti wax ci àdduna kenn du la gëm ndax instant bi même boo demee porter ma plainte tamit.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 ba si guddi gi ma toog ak sama xarit yi nga xamante ne moom laa doon liggéeyal foofu ñu may naan toogal man leen bàyyi leen rek ma dem mu bàyyi ba ci guddi gi ma yóbbu ñoom ñëpp ci Brioche Dorée ba ñu jënd après man ne leen sama bagage yi nga xamante ne ñu ngi ci beneen cabine bi ma wax beneen fii bi na ma ko indil ma daal di génn si guddi gi dem sama yoon daw ñu toog ba ay cinq mois daw ma mooy.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 yow demal kooku ba mu demee après ma woo ma woo Fina mu ne ma ki nga ma yebal fii de ñëw na mais yow koo mu booleel dama koy jël ndax xale bu baax nga xale bu yaru nga ma ne ko waa ñu toog ba deux jours xaw ma quatre jours mu woo ma ne ma sama fii bi de dafa am jëkkër ndax mun nga dem mun nga ñëw fii nii remplacer ma ko ba mu ñëwaat ma ne ko remplacer mu ne ma ah waaye mu ne ma waaye de massage yi fi amoon yëpp amatu fa.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 ma ne ko déedéet mu ne ma mu jox ma beneen pilule ne ma beneen lii nii bindal ma ci feuille ne ma tu risques de tomber enceinte walla da nga sentiroon ne tu es enceinte wala affaire yooyu bu pare ma ne ko non non xaw ma parce que bëgguma woon joxe détail ba mu ne ma kon jëlal pour fekkee ne tu n'es pas enceinte mën nga jënd pilule yi nga naan ko. Hmm. Mhm. mais def nañ ay prélèvement ci guddi gi.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

ci femmes yi ma demoon femmes yi nga xamante ni ñoo ñoo doon lii nii femmes yooyu ñoo ma ko proposé woon mais dama gisoon ne jaru ko. non que jamono ji am na gynécologue bu lay suivre. non non. am nga carnet prénatal. carnet prénatal comme. Euh,